asalaamaaleykum sama gars yi maa leen di ziare bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal seen seen YouTube di leen wax ngeen di abonné bu baax a baax a baax ak di like vidéo yi dee leen like vidéo yi sama gars yi like bi ah like bi bi am na solo de gars yi dee leen like gars yi dafa am benn journaliste boo xam ne Qatar la nekk xam ngeen ne seex Yérim Seck ak ma jaañ ma ma ma jaañ quoi ñoom ñaar. tumal nañ fi Ousmane Sonko ñu ne dafa wa Qatar ñoko jox ay milliards yu bare bare bare légui nak dafa am ben journaliste bo xamné indi na ci ay léral nañ dem diglu diko après ñu ñëwaat diglu leen. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة بعنوان تكذيب مني أنا صبر مشهور لما ورد في الإعلام السنغالي الموالي لفرنسا بشأن اتهام زعيم المعارضة السنغالية عثمان سنكو بأنه تلقى 20 مليون دولار تمويلا من قطر عبر شخصيات من الإخوان المسلمين منهم آه، أنا يعني العبد الفقير لله وطبعا هذا كذب لا أساس له آه، أنا لا تلقيت أموال من قطر ولا ولم أشرب بمعرفة عثمان سنكو ولا عمري كلمت عثمان سنكو ولا عمري اتصلت بعثمان سنكو ولا أعرف أصلا اللغة الفرنسية وأنا لا أعرف إذا كان يعرف اللغة العربية <laughs> إيه، لاني لا استطيع إيه، التواصل إيه. معه الا باللغه العربيه <laughs> فانا لا كلمته ولا كلمني ولا تواصلت معه ولا تواصل معي فضلا عن انني لست من الاخوان المسلمين اصلا انا مجرد صحفي مستقل ولا امارس <laughs> الاعمال الحزبيه انا فاتح قناه على اليوتيوب امارس فيها التحليل السياسي وسبق أن تناولت في فيديوهين سابقين يعني منذ عامين آه، كان الشعب السنغالي المسلم شعبنا الأصيل يقوم بمظاهرات ضد الرئيس الحالي في السنغال ماكي سال لمنعه آه. من تعديل الدستور ليسمح له بالترشح لفترة ولاية ثانية وقاد هذه المظاهرات زعيم المعارضة عثمان سنكو والحمد لله نجحوا بالفعل في هم نجحوا 50% في نصف الطريق أه؟ انه افشلوا مخطط التمديد للرئيس الحالي اسمه ماكي سان المولي لفرنسا وسوف تجرى الانتخابات الرئاسية في السنغال في غضون طيب. شهرين آه. فيريدون أن هم يخلقوا شائعات وشيء من هذا القبيل وهذه الشائعة أصبحت محل آه، نقاش في الإعلام والتلفزيونات وما إلى ذلك فتعالوا آه، نبدأ إيه. ونرى طبعا اللي حصل حضراتكم في السنغال ان فرنسا لها مرشح اللي هو رئيس الوزراء الحالي اسمه امان <laughs> وفي مرشح مدعوم من غالبيه الشعب السنغالي وله شعبيه جريحة جدا اللي هو زعيم المعارضه عثمان سينكو وعثمان سينكو افشل مخططات فرنسا في التجديد للرئيس الحالي فلجأوا الى حل حزبه هم لفقوا له قضايا ووضعوه في السجن ولكن القضاء السنغالي اصدر حكما اخيرا أنه حقه يترشح للانتخابات الرئاسيه فندعو الله سبحانه وتعالى ان يفك اسره وان يخرج من السجن وندعو الله سبحانه وتعالى أن الانتخابات تجرى نزيهة وندعو الشعب السنغالي كله للتوجه بكل قوة لصادق الاقتراع وأنه يحمي هذه الصناديق بدمه وباذن الله ان شاء الله يفوز عثمان سنكو ويصبح رئيسا للسنغال ولا عزاء لفرنسا واراضي فرنسا وكما تحررت النيجر وتحررت بوركينا فاسو نعم، وتحررت نعم، مالي نعم، من الاحتلال الفرنسي ان شاء الله <laughs> تتحرر ايضا السنغال من الاحتلال الفرنسي على يد عثمان سنكو ان شاء الله وانظروا انا بقول لكل اسلاف فرنسا يعني. الموجودين في السنغال أه؟ انظروا الى ماليزيا انظروا تحررت من الاحتلال الفرنسي بوركينا فاسو تحررت من الاحتلال الفرنسي مالي تحررت من الاحتلال الفرنسي وباذن نعم. الله ان شاء الله آه، سوف تحرر السنغال طيب. ايضا من الاحتلال الفرنسي والسرقه والنهب اللي بتقوم بها بحق السنغال. طبعا آه، هذا المرشح اللي هو رئيس الوزراء الحالي اللي هو مدعوم من فرنسا هو نعم، ذهب الى نعم، فرنسا آه، كي ياخذ دعم من فرنسا نعم، آه، يعني هو ابن فرنسا واذا ان شاء الله سوف في كما خسر عملاء فرنسا في بوركينا وفي مالي وفي النيجر وباذن ان شاء الله تشتقون على الطريق والسنغال ايضا انا حضراتكم بعض الذي نشروه وطبعا نشروا انه آه، انه جماعه الاخوان المسلمين بتدعمه وانه منهم زعيم الاخوان او القائد في الاخوان المصري صبر مشهور وانه في اموال قادمه من قطر amu defni sama caméra dama koy yamale fi sama xol neexul gaay Cheikh yirim sexe ak ma ki jaañ moomu togn nañ sénégalais xol len nar yi liñ wax tay avant tout ma ngi len di xamal ne li nar bi di wax nak xawma ci dara ko damay deug sa xol yow ya rew dama ña dama bëgg mu leer quoi naar bi li muy wax ma ci dara mais dama xam ne li muy wax lépp dëgg la. li muy wax dëgg la parce que Cheikh Yérim Seck ak man nangam jaañ moom. ñoom dañuy tooñ sénégalais parce que naar yaa ngi ni mer nañ instant bi mer nañ seen xol yi naqari nañ léegi jàpp nañ ne sénégalais yi ñoom ñooy wax fekk na du sénégalais yi ñaari nit la ak benn député ñaari ñooñ sax duñ ay nit ay naa ñaari kii lañ ak benn député quoi benn kooku tamit du député kenn xam luñ koy woowee léegi yéen a ngi ni naari Qatar yi mer nañ jël nañ suñu foto yi taf ko lu nekk wax nañ ñu ko léegi lii ngeen yaakaar ne rafet la quoi ngeen yaakaar ne lii lii gars yi man sax avant may continuer vidéo bi maa leen wax ne maa ngi ànd ak sëñ Moustapha Mbacke di sëtu sëñ Abdou Lahad Mbacke di ñaankat boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu ngóora moo ko tax a jug mais tamit day ñaan day listixaar ki nga xam ne am nga jafe ci wàllu ngóora jokkool ak sëñ Moustapha Mbacke mii numéro téléphone baa ngi noonu yor na biteel boo xam ne képp ku ko mos te amoon jafe-jafe boobu incha allah rabi di nga tàqali ko moom mais day ñaan day listixaar gars maa ngi wéy ba léegi di continuer ci Cheikh Yérim Seck ak Maly lii jaañ bugguma jaar sax ci ni ma ko bëgg a woowee parce que turam dëgg-dëgg bugguma ko tudd quoi mais xool leen li ñu def tey tey naar yi ñu ngi def ay video di dem ci seen journal yi di wax di man nag problème bi maam xam ngeen lan la xam ngeen ban problème <laughs> xool naa fa xool mais man tamit ku jar a toog man dañ maa war a vaar def ci man kaa ay journée spéciale parce que man lii naar bi di wax boo leen bëggee dégg dégg rek xaw ma ko <laughs> damaa rafet njort képp mais ñi nga xam ne dégg nañ li naar bi di wax te jàpp nañ ne li ma foog mooy li am mooy li ñuy wax moom dëgg la moom Cheikh Yérim Seck si mii ak ma nangam jaañ la ñuy weddi ne li ñuy wax lu dëgg loolu laa yaakaar dama bëgg ngeen leeral ma carrément lan la lan la naar bi di wax parce que naar bi li muy wax ñor na ko boo leen ko xoolee xam ne xool bi neexul. léegi nag yéen ñi dégg araab dimbali leen ma si naar bi li mu wax parce que man man dama gis vidéo ma ne dëgg la de li muy waaj a wax ak li mu waxagul yëpp dëgg la waaye man est ce que nekkul tamit di neen loolu dëgg la wala Ousmane Sonko di di dal ci kawam man naar bi mbaa bokkul ci système bi ma ñëw fi naan dëgg la <laughs> ah, man nag war naa xoolaat saa xam naa ni moom war naa dem Touba wala Tiwaawan nu wàccel may kaamil ñaanal ma ci yàlla ndax lii ma dal wàcc <laughs> ka bu nek indi nak fi nak mais bo man ki bu fekke dafa ne Ousmane Sonko lay nek di ko kalaas wala mi dal ci ko man fa la kay waxe ji ma tok fi nan deug la ah mais yàlla du def lolou yalla dina ma sutural xana ah, ñaan rek yalla ñu yalla sutural ba li nga xamne mom la laa yalla nek deug te moy japp naa Cheikh yirim sex ak ma nangam jaaj mom li ñuy wax du deug man nak lolou la yaakaar ne la nar bi di wax kuma ci tané te man ma ci dimbali nga jappale ma ci euh, bisabilillah itu nak ko de ni. wassalam. <laughs> ay ba tey bala ñoo commencé duma dañ di leen présenter Serigne salim Mbacke borom jurul ku yàgg sirane sama vidéo yàgg nga gis ma leen koy présenté muy ko yalla deeng xam-xam lool nak machallah diga wax moy deug kon bok Serigne salim Mbacke borom njurul présenté waatal garab gaay mëna xam njariñ li borom jurul cabinet yo xamne amna dagar dagar rek la ñu ne amoon léegi am Mbour amna na Touba ñoo ngi ci sant hmm garab bi day faj 15 maladie ci na nga ko gisee ni xam nga étagère yi nga ko fekk do gis ben yon ñu duggal ko ci frigo du xeeñ te boko tegon 4 mois du yaq hmm 15 maladie lay dindi muy cité siti hémorroïde ballonnement bëri lëndëm biir buy metti tànk yu xar estomac insomnie sinusite fatigue général diabète tension perte balance règle douloureuse l'impuissance sexuelle da koy dindi bam mu jeex tak tàkk te moom boo koy naan da gis résultat te doo si jël lu bëri macha allah defe ñoo ko déggandoo noonu garab gi na képp koo xam ne aussi bëgg nga ci garab gi gaawal nga gaaw nga ma leen defal ci suuf képp koo xam ne bu nga ci garab gi gaaw nga gaaw contacter cabinet bi la gëna a boko défé inshallah rabbi do xëc aussi képp ko xamné ne bëgg nga mu sétal la défal la ay ñaan xam-xam bi sel na te macha allah li ma neex ci mom léppam alcorane la wa sét mom wax dëgg yalla yalla may nañu ci sét nak ñu ngi koy défé ci hilmu nujum muy xam-xamu bidiw bu dé listixaan ñu ngi koy défé ci alcorane ñun dañ lay wax lépp lo xam ne na ak li nga xam yang koy dund ni te xam nga ni li mom mi ngi lay arrivé mo xam metti na mo xam metti yaa yang koy dund ni ak li nga xam ñëwagul na xeyna na dund goo ko waaye dana am signe yooyu lu koy wan dana la wax yooyu wax la sabab bi lépp lu la dal wax la fi ngay teg sa tànk wax la li nga xam ne moo lay yàqal ba noppi wax la sarax ya li nga xam ne boo ko defee rek mu dañ macha allah ñoo ko déggandoo gars yi Serigne Saliou Mbacke borom julul moo nekk noonu xam-xam bi set na sel na te léppam alxuraan la kon boo gaaw leen gaaw ngeen contacté ko Serigne Saliou Mbacke borom julul kontaan naa ci li ngay saafara jafe-jafe askan wi voilà sama gars yi mu ngi noonu ah, kooku mooy Serigne Saliou Mbacke borom julul kenn dootu leen ko présenté muy koo xam ne yaakaar naa ne liggéeyam ci Sénégal ñëpp gis nañ ko moo xam lépp loo xam ne wàllum jàngoro la joo xam ne nee na lim ko ci ay jàngoro yoo xam ne mooy si borom jurul boobu rek incha allahu rabbi ku ci jokkoog moom sa aajo dina faju mais day ñaan day listixaar mais tamit am na fasu amit daal boo xam ne moo koy def ci loxo boppam képp ku jokkoog moom incha allahu rabbi sa aajo dina faju kon jël leen numéro téléphone yi mu ngi noonu ci suuf